bonjour amis chers téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar nee naa leen nag ku ko mën ak ku koy jëm du benn ba tax na fii rek lay xewee ci biir Baya TV tey nag dañ doxantu woon ba marché Tëngéej ci centre commercial seet woon ñi nga xamante ne nii rek ñooy jaay li nga xamante ne rek mooy yëfi Saint-Valentin yi mais du def lu rek jaar sama tata bi fas yéene kaa laaj nan la gisee Saint-Valentin bi la. maa ngi lay fay soxna si. mbaa yaa ngi si jàmm. jàmm bu baax maa ngi si baax. tey ñu ñëw fii centre commercial fekk la sa place ñu gis ne tey la Saint-Valentin yow noo ko dundee waaw neex rek macha allah Saint Valentin moom jaaykatu cuuraay ak fer yi moom dañ koy yàkkamti parce que macha allah jigéen ñi dañ ciy dem bu baax macha allah waaw ñu ngi nii daal di def ba mu baax fer yi gisoo. maman yow baa xeeboo sa jog wa. xeebu ma ko moom xeebu ma ko de ndax il faut booy jàkkaarloog ay trianke il faut nga am noo defee. Eh, loolu neex na de. bëgg na yokkul. <laughs> léegi ma bëgg naa xam lii nii pour lan waaw bii mooy feru Chanel yi moo génne nii si Saint Valentin bi gisoo ko nii rouge noir lek sër yu rafet ak deux pièces yu caga wa séria yi nonu gin amna tamit ay mante yu neex macha allah waaw yep ngi fi nuisette yi mante yi man nga mako wala mono mako ko wat nay deuguer amna nay saf yi amna na lembi lembi bi la ah bi moy lem bi moy lem mante bi macha allah bii moom foo diw rek day neex sedd guuy kon dal fi dal fi la bax ba bi nek maa la wax lii loolu dafa leer <laughs> ban ah, glacé nay sedd nay sedd dara ba duñ la may kayitu kër bu baax noonu la ah macha allah kenn waxatu ko ah, ah. <laughs> caramel baa ngi ah bii mooy caramel bi plaisir rek ka tax ah jóg hmm. waaw pour plaisir rek la moom macha allah waaw ah, luy wax ñi neex na de pompement yeeg fii daal ngi fi moom yëpp mën naa ne daal fii daal mooy dox daje huile massage yi te sama huile man dama siy def mante day neex macha allah ay ëpp tenga bi nen yeeg yëpp ngi fi ndax bii moom bii mooy ëf tengaa bi est-ce que xam nga bi yow. non maman lii xaw ma ko nag. dugg la sa loxo loo yëg. li ma yëg dafa neex moom. bii ku góor a ko moom. waaw bii pour Georges la. dëgg neexul bii moom diwal ma dugalal ma rek muy seet rek. waaw lii da laa wax. yaa wax lii. lii da laa wax lii da laa wax. tàngal yi tamit am na aussi. fii daal yëpp ngi fi yu baax yëpp ngi fi macha allah. fii mooy tàngal pines bi jëlal ma forme bi yow jëlal ma lii. Ah, maman lii nii doy na waar ay soccu yeeg yëpp ngi fi fii moom daal mooy ruq jéeg yi. mën naa ne kon fii daal fii mooy dox daje. waaw fii mooy dox daje xam nga tey dafa xat ak client yi taxawee nii doo mën a wax li nga bëgg a wax yëpp mais ku bëgg rek na ñëw fii ma defal ko yu baax. mais yow gis nga ne tey ji macha allah journée bi Saint-Valentin tey ji dox na jaay meeg yooyu. neex na neex na xam naa moom si kanam la gën a ñëw moom parce que dañuy añ ba pare ñu doogay ñëwaa ah, si kanam. di si ville bi a xam. ah tey de Saint-Valentin bi xanaa ñu def lu yam rek man damaa ñëwoon fii sax pour jëndal sama sama gel yi cadeau nii. quatre gel grand est di nga génn ku nekk dama lay jëndal benn fleur rek ak benn parfum seerul benn style bu téeméer yow daal loolu gis mais quatre gel yooyu am na ko si gën a bëgg waaw am na moom ku ma si gën a bëgg moom mais kooku moom dama koy jenc wax ma ko rek wax vous plaît non jaagoo la sax mais baa ma jenc ko rek bu ma si ñëmal tuuti rek baa ma teew ko bañ mu fës ko waaw bëgg ma ñi ñu xam ko yow daal njaago boobu ngay ngay sa Saint Valentin wala ba mu neex kay moom laa nar a passé tey sama Saint Valentin de boo koy wax loo koy wax lu neex lu ma koy wax ni ko daal moom fu mu teeg fu mu toog na xolam dal <laughs> xelam dal ma naan xolam dal sax nag moom rek laa bëgg bëgguma kenn à part moom. yaa wax loolu man maa wax loolu. li nga wax dee na du ma def du dem seeti ji keneen rek merci beaucoup rek ok ciao. sëy goro ba sëy ak papa yi jëkkër ja sëy ak njëkk ya dafa metti na goro yi muñal xale yi pour ñu sëy parce que sëy yi divorce yi bari nañ divorce yi bari nañ torop te man vraiment suma ma ben divorce du am suma ma xalé dañuy sey defar bam ba xalé tamit gëna gëna gor gor gën a góorgóorlu xale gor nañ góorgóorlu nangoo muñ parce que sey tamit muñ da cee bok waa topato sen goro bu baaxa baax mais en tout cas goro mom nañ leen muñal nañ muñal xalé yi du deug wa tangal yaangi ni gis nga ko ni wa tangal yaangi ni tangal mom lu muy démé ni mama tangal yi neex rek gis nga ko ki mu sék madame la yow tamit chéri ah ki 200 rek lay jar 200 francs rek lay jar daa bëri nii yow est-ce que duma la ko may sax bu ko defee nga nga nga defar ba mu baax. waaw kon ma defar ba mu baax déjà yow yow yow def nga sa Saint-Valentin ba pare waaw. neex waaw bu tawee bu ko simple. mooy ni nga dafa baax yow rek macha allah. waaw sa dernière parole. waaw xanaa bëgg rek xale yu góorgóorlu rek waaw xale yu góorgóorlu defar ba mu baax ma dëgg yàlla eh, su ma sañoon xale yëpp sëy yàlla na xale yëpp sëy tey divorce yi ñu wàññi ko bu baax a baax wax dëgg yàlla eh, parce que divorce yi léegi bëri nañ sëy yi léegi dangay gis ku sëy rek ay deux mois un an bu gën ngaa bari un an sëy bi tas te loolu wax dëgg yàlla ñun sa ñun bu ñu sañoon ñun lool du am parce que ñun defar sëy yi rek lañu fi nekkee suñu sañoon xale yi dañuy defar ba mu baax te balaa dara di xew yow balaa ngay am wujju defaral avant tout sa wujju di ñëw parce que soo xaalee ba sa wujju ñëw ba dëgg yàlla su boobaa loo defaral ci sa jëkkër dootul neex avant sa jëkkër avant sa wujju di ñëw defaral ba mu baax su ko defee sa wujju bu ñëwee ah da fekk fekk na la ci nag am déet day fekk fekk na la ci waaye boo xaaree ba sa wujj ñëw nga bëgg a defar su boobaa sa jëkkër da lay mere wala mu ne kii lii moo kii moo tax mu di ko def te fekk demewul noonu kon na xale yi defar ba mu baax avant sa wujj di ñëw. soxna si nuyu naa la. fay naa la. waaye yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. tur bi. Penda la Penda Diallo. Penda Diallo lañ la bëgg a laajte ndax yow mi fi mu nekk nii tu es mariée ou pas. waaw dama mariée kañ. Ah. waaw. légui yow ban jikko mo la gëna neex ci ki nga xamanteni ni mom nga nekkal manam lan motax mu do nga do mu doon sa volonté wa parce que dama may liberté dal may ma sama jamm ma ngi ni tok di liggéey sama liggéey wax dëgg sama lu ma ci dara dal té lu ko warlo ak mom mom dama koy defal man liko warlo ak man dama koy defal waaw li ngeen la do ñep da mu la koy defal kon tay dal bëggoon nañoo xam ne nga xamante mo koy waajal tay ci volonté ci Saint Valentin wa xana xanaa lu doy war rek sàjj lu garaaw barke unité bi sàjj lu doy war waaw fas yéene def ba mu baax damay teel a wàcc nag hmm. waaw tey moom amul toog moom. kon daal yow daa préparé nga tey lépp loo xamante ne rek pour bëggal. waaw macha allah lépp laa def moom lépp waaw ku wax sax da ngay juum. Hmm. waaw lépp laa def. fas yéene def ba mu rëtëtëpi. ah nii neex na de ba pare préparé nga ko dogu baax rek. barke yu nent bi. Hmm. waaw comme ni ma ko defee woon daaw rek noonu laa ko defee ren ndax yàlla daf ñu may tal ak fekke kon nañu koy def ba mu baax du dëgg yow dal bokay wax message sim nek ni lokay wax dama nan kan suis je t'aime eh. lo rek la hmm. ma vie deug la waaw ah, loolu neex na de loolu de laa koy wax contane <laughs> ah, nañ ci yow bu baakha baax duma def du dem setti kenen rek sa ne si nuy na la fay na la tour bi Adja waa tay ñu ñëw fekk la ci marché te geej bi fekk la ngay jënd yu baax yi toujours ah. Saint volontaire ma gis yow nokoy dundé tay ah fête d'amour rek lañu wax dañu bëgg def pam baax xam nga xale yu góor ñun ñoo leen fi nekkal. ñun jigéen moom dafa leen. waaw tey nag fête des amoureux dañuy def ba mu baax rek. waaw. ah waaw. Ah, ñaata nga am. <laughs> non benn rek ah ñaata Valentin laa am nag. <laughs> ah benn Valentin rek laa am nag. mënoo ñoo wax turam wala. non non non. <laughs> Ah. yow fi nekk nii da ngaa ñëw pour jënd yii pour bégal ko wala. non yii yii jënd ma ko yii moom jënd ma ko. waaw parce que mooy loolu waaw yii moom ay ay kii la def naa foroote la. Ah, bii la. waaw yii ay foroote la yii moom pour marié yi la ñun ay célibataire lay daal fu ni pare wo dal pour dundal ko cadeau wala xam nga rek yi mom ci cadeau yi ah lob yi wa dina bax ci mais li ni mom marié ye ka mom wax fa yalla man mom dina jënd mom fleur décorer sama nek bégal sama bopp bokk dañ ngay bégal ah waaw yow ba nëbbatu woo ba ngay nëbbatu de ndax loo wax wax bolé ci ree yee dinaa décorer sama nek dal ba mu rafet yow léegi yow ki ngay dundal yow lan mo la gëna neex ci mom lo xamante ne yaa dund ba tax yow tay mu nek sa volonté jikkoom ba tax tey mu nekk sama valentin way bu kii waay nu mu tudd bëgg na ma yërëm na ma boobu noonu waaw waaw bëgg na ma yërëm na ma sagal na ma tamit am na sa yërmande aussi waaw am na sama yër aussi. su ban wax ju nekk nga wax tey jii ah, mon bébé chéri je t'aime mon amour. <laughs> Ah, I love waa di wax jigéen ñi rek ñu góor góorlu ci sëy yi tey xam ni xam nga rek tey métti na neex na neexul nañ góor góorlu rek loolu daal laa leen am fee dee damu rëy nañ def ba mu baax foofu toj kontaan naa ci yow merci beaucoup ami chers téléspectateurs lii lañ leen andiloon ci li nga xamante ne rek mooy jour Saint Valentin ñu doxantu yi nga xamante rek ñooy jaay yu baax yooyu mais du def lu dul sama cameraman bu ñaawal bi daaw da nee naa la saa su nekk rek nii def di leen bégal mais du xewee fenn du ci VA TV di leen wax bye bye moi je vous aime beaucoup